bu bëree su paree polémique bëri loolu ci kawam naka nga jàngatee defat Papa booy Djiné bi amaat keroog ci arène mhm. xam nga Papa booy Djiné yaa ngi dégg benn affaire moo ci am Papa booy Djiné li mbër soxla loolu la am. jàppale. waaw amul jàppale. am na jàppale. Ah, am jàppale. xoola mbër xam nga lan la soxla jabar boo xam ni yaa ngi dégg loo ne mu necca bañ laa teg benn pression bëri na ñii di boo ko weddee demal xool ñii di nelaw ci oto yi ak ñii nelaw di jéggi oto fel leen jigéen leen ko teg amul pression zéro pression si Ndeye Gueye kon am na jàppale. Mhm. am na wala amut. du dëgg mais làmb ji ak ak Ndeye Gueye ak papa booy ji ne du benn te nit ñi dañoo dañoo boole lu bokkut mais Ndeye Gueye si boppam Ndeye Gueye boo ko seppee teg ko Ndeye Gueye ba muy bëree. kenn daanu ko dafa daan ñëpp. waaw. tekkil bëre Ndeye Gueye. bëre bi Ndeye Gueye di fecc di toll ci mu fecc Ndeye Gueye ku mu fecc ndool moo la dàq fecc kon Ndeye Gueye dafa bëre daan mais papa carrière u Ndeye Gueye ak carrière papa Boy Djiné buñ ko jaawale Ndeye Gueye dafa bëre ba dégg daal ñëw toog. Ndeye Gueye dégg na daal yi bu doon roi nekk na roi des arènes dix ans nangam. parce que ku xam ni Youssou Ndour ak ni mu toll su mënee seppi Ndeye Gueye wër ak moom àddina Ndeye Gueye lan la Ndeye daan na. yaa ngi dégg mm-hmm. papa mooy jéem a daan papa ak Ndeye xam nga Ndeye du diw saafara Ndeye du dem si sëriñ kon pourquoi ku Gueye wa Ndeye ak papa booy jinne yaa ngi dégg Ndeye Gueye war a mën a daaneel papa booy jinne jàngat ñenn ñu bari ñoo xamante ne bu papa daanoo rek li ñuy njëkk a xalaat mooy jabar ji ndax jabar jee ko mag sëy ak mag boo yeggee ci yenn euh, sport yi wala ci yenn làmb yi à chaque fois day feeñ yooyu kàdd boo koy dégg ñu ne mag gi mag ndéegee mag papa moo tax à chaque fois su baree daanu nak ngay déggee kàddu yooyu nit ñi di wax. Hmm. xam nga loolu amut waxaat rek ba pare buñ dee waxati loolu war nañoo rus suñu sang ñun Seydouna Muhammad ak Khadija. xam nga ñii lan lañ manqué ak jullite parce que tey am na loo xam ne boo koy wax xanaam loo nit dina wax lu xam ne mel ni kuy màbba nit dina màbbal diine te du ko yëg boo nee papa booy jinne yaa ngi dégg dafa sey ak ndey gay ndey gay moo ko mag moo tax muy daanu boo fàttalikoo Seydunaa Muhammad rek xam ne Khadija ni mu ëmbee woon Seydunaa Muhammad moo taxoon mission bi ak mais ki ñuy jàppale si mission bi kooku kan la et puis ma wax la benn affaire fekkeewul ak papa ji ndam wax ma ko. avant moo papa. fekk di se balaa papa ji di sëy ak wax ma ndamu papa léegi ñu doog a continuer non kon yii ni ngi tooñ Ndeye mais xam nga tey tey bu ma ñëwee si yow sëy si mm-hmm. fekk laak ay ndami ndam ma ñëw rek mënatoo am ndam. mais gis-gis falay lay commencé yéen tamit boo doful loo gis leer na la mais wax dëgg yàlla papa boo jinne sama booy la nit ku baax la suma xarit la yaa ngi dégg mais ndey géey ndax dafa fekkee papa jinne ndam da ko fekkee ndam ay journaliste ngeen de léegi dem leen ngeen. yàgg naa bi yàgg naa jël ay drapeau daal na ci kaso bi. xaaral ma wax la xam nga. waaw xam nga tey tey ma wax la benn affaire non arène lañ wax Ndeye Gueye lu dëgg Papa Djiné boo ko fekkee entraînement gaynde la mais bu ñëwee si làmb ji lu tax muy daanu. lu tax muy bi mu nekk. ma wax la bëgguma ko tudd mbay Samb fala la nekkoon dàq bëre ñëpp mën ñëpp te bu demee làmb daawul daan neel ron xam nga fa la newoon ñun ñii fa lañ newoon nee ko na jël kaawu Papa Boy Djiné mu teg ko si kaawu mbay Samb bi papa booy jinne demee fekki Ndandi Fall Ndandi Fall lem ko si loxo bi dafa ma fàttali safa Gueye bi mu jàppee euh, mbay Samb benn loxo la daanee mbay Samb. Hmm? faxasu def nii. combat yi ngay fekkee ñu ko woon. damay non xam nga nit sooy wax dangay indi ay archives. ay archives ikiri waalo la nekkoon Mbaye Samb contact Mohamed Ali munu ko woon daan. Mhm. Père Balla Gaye munu ko daan. si contact kenn munu ko fa woon daan. ñun ñii ikiri waalo lañ nekkoon ikiri wax chaque jour ma la man ikiri waalo laa nekkoon ron ñi seen entraîneur ñoo fa nekkandoo woon mais neel ron dégg naa ko mu def benn communication wax na dëgg mais na jël kaawu kaawu kaawu papa booy jinne teg ko ci kaawu teg ko ci teg ko ci kaawu papa booy jinne mhm. waaw mbay saamu ikiri waalo la nekkoon bi keroog bi ñuy daan papa booy jinne dafa fa Tafa Gueye mbay sàmb mbay dafa dem yooru Tafa daan ko ci benn loxo di faxasu def nii dem yoonam na ko ci teg xam nga làmba euh, dafa laaj dafa laaj nga xam ko làmb dafa doy waar mais naka ngay déggee aussi. Euh, dégg nañ kenn koo xamante ne tamit euh, Cheikh Ahmed Cissé moom it def na analyse am ci li nga xamante ne moo di ay defetu Papa Boy Djiné waaye Ndeye Gueye la joxeñ baaraamu tuuma bi. ndax euh, nee na bu xalaatee bu musaana toog ci ay plateau am di jël ay waxu nit di wax ay waxu nit yooyu àq xëy na bu ko dalee rek na xalaat la mu leble woon nga bokkoon ak moom plateau bi naka nga déggee wax yooyu. wala Cheikh Ahmed Cissé bi mu waxee loolu Ndeye dama ni ñaw Ndeye Cheikh Ahmad Cissé Ndeye Gueye moo ko doon protéger su may dem si kawam Ndeye naan ma baal jàmb rek kii oustaz laak kii téere laak kii laa nettali waxu jàmbur est-ce que jar na tiitaru hmm? loo wax arxuraan a ko wax Cheikh Ahmad Cissé dafa laqatu ci arxuraan mais moom du arxuraan su doon arxuraan la nit est-ce que arxuraan dina nangu nit am naqar nit di ci bànneexu jullit dina ko def waxal mais mais neel Cheikh Ahmad Cissé Papa Boy Djiné dafa bëre rek daanu mais su demul ba jox jàkka yi ne nañ fi séddale ay capote Papa Djiné defu ko de waxal waxo dina ko def neel papa bo neel si si Amath na xool kaa moom si kaaw Papa Boy Djiné parce que moom Gàmbi la jóge di ñëw fii mais doon na labat soxna su ndaw kooku dem mu def ci lu dul jeex kooku dem ba nekk mag ne ko du ma sëy yow wax ko mu yem. Hmm. waaw kaala de. yaa ngi ne ah du la ko wax de. yaa ngi dégg hmm. kooku mu doon bëgg a labat ba def si million am yu bëri bu pexeem sotti woon moom lan la koy magi hmm. xam nga lu tax yàlla digale ne bul wax ayibu jàmbur say ayib yow daf la war a doy sëkk xoola c'est Amath Cissé bukki bu sàngoo deru bay la bala ngaa xam ni lii bukki la mu damm sa tànki bay leen ni diine tey jii bu ma la toogoon nela se see amat si mooy kan dooma do xoola dooma wax mooy kii même garab gi muy jaay garab gi àndal la yi xaw ma ñu bàyyi ko di ñu di ko jaay léegi garab bi ma laaj la benn affaire booy jënd ci sëriñ boo xam ne day jël ay garab di ko jox nit mu di ko naan mu ngi mel ni ngay jënd si pharmacie bu amul kayit di nga jënd si pharmacie bu amul kayit nguur gi est-ce war na seetaan pharmacie bu amul kayit ma ne nguur gu def liggéeyam est que dina seetaan pharmacie bu xam ni amoo kayit ngay ubbi. médecin médecin ci réew mi. non mais dafa am ñu ko xam ni dañ koy teste ba xam ne mën nga ko. ay jàmbaar man xam naa reen sama maam da daan gas reen. Hmm. mun naa jaxase léegi si li ngay lekk faj la ci. est-ce xam nga loolu. mais dangaa xam ba xam lim lay jox nga di ko naan ban effet lay def sa biir xam nga ko. waxal moom c'est Amath Cissé dafa war a njëkk lijjanti loolu bañ a lijjanti gillu papaa booy jinne moom de ay jël lay lijjanti moom lay jaay di ci dund kii nag jëllu bëre lay def moom jëllu lal lay lijjanti am na wala amut mm. ba pare du fayda ci moom ni mu toll. tey mu dem ba ni moom nitu diina la maamam wëlliyu la nangam nangam yu kenn xamut yaa ngi dégg tey jii mu ñëw fekk benn jigéen di teesanteeg moom ay see amatise ay ñoom aadama benn lañ ay nit lañ yoo xam ni lu xew dañ si profité pour di naan nañ am bës rek nañ am bës rek ba pare moom dafa jàkkaarloo ndéygay di ka laay fal see amat Cissé man su ma jàkkaarlook moom lu tax du wax. yow ak moom. boole nañ ñu maintes fois mu tëdd ci taabal ji ba ma ñibbi mu jóg di wax. ci Sénégal yow laa fi gis yow ku ñeme yow muy dëggal sa bopp ñeme bokk ak amee si sa plateau. non dama ni Ndeye Marie moo ko tëggoon public effet public bu ay Diop Fall lañ ñu woo tàppeel nga xool dafa tëdd ba ma ne ko muuma maa ngi ñibbi waxal daje nañ RDV. est que loolu pare ngeen pour mayaat ñu ko ñun Sénégal Buzz woo ko soo ko woowee soo ko bu nangoo ñëw ma bàyyi showbiz. bu nangoo. bu nangoo ñëw ma bàyyi showbiz. pare nga pour jàkkaarloog moom fii Sénégal Buzz 221. waaye moom moo njëkk a taxawal moom moo njëkk a taxawal boppam ni jimboori du ma moroomam su suñu jàkkaarloo su ma ŋaaŋee rek jimboori romb na ñu daje RDV ma def ko lu hmm? RDV la ma ñam xam nga góor bala nga kaa yab da nga koy ñam. foofu la ma njëkk a ñam ñam lu sap-sap bi faa moo ñu boole bi faa ku ñuy wax bi faa moo ñu boole mu ñam fa lu wexaat Lamine Ahmed Cissé ñu ko ñam ci réew mi non doo ma déglu xanaa am loo buy wax te du bëre dafa yomb de xanaa am loo ni nga ma teg nii may wax bëre ma nii de damay wax signature la mais xoola man ma wax la dara xoola ñaata ñaata nit nga xam ay waxkat yoo xam ne jàkkaarloo naa ak ñoom waxuñu bëri na waaye bëri de mën naa limal mën naa laa limal ñu bëri ñi ngeen gën a coow yëpp bi ma taxawee seen kanam waxuñu doxul de ñi ngeen jàpp ñu dàq a wax dama jàkkaarloog ñoom ku sama jàkkaarloog Coura Macky nu mu demee. waxal nii ak keneen ki doon jël bii wër di pelpel yi nu mu demee nii ñoom ñëpp nii c'est Amath Cissé deux fois lañ jàkkaarloo dafa mujjut jàkk ci kanamu ñoom euh, waa public mu ne ma dama la ragal. du ma jàkkaarloo ak yow wax ko devant public ma ne ko loolu laa bëggoon dégg saa yee. kàddu yooyu li muy mbap mbapi ak jigéen. mais maa ngi nii. da nga bëgg a jël xeex bi ci ndeyge yo non ci xeex bi. Ah, ah, moom moom mos a toog si internet bi ne jimboori du ma moroomam su ma ŋaaŋee rek jimboori jàll na. xoola xeexu Pastef Pastef la xeexu APR la mais ñun ñii di wax. nañuy bañ di mbuboo APR di mbubee Pastef ñëw di wax si turu nit. mais toppatoo bi mu tudd euh, Ndeye Gueye ne daan wax waxu jàmbur da nga see gisa sa bopp. man maa doon wax Ndeye Gueye di arrêté moo tax ma ne Ndeye Gueye ñaw démb maa ko woo ko ñaw lii baax na si yow Ndeye Gueye xuloo si ak man ndax c'est Amath Cissé mujj gi mën a mooy tooñ ndey na ko dalaa may xaalis moo tax bu ma waxati nga may arrêté demal nga tàppe ma ko xoola booy wax nga wax sa wax boo kiyee ndey ne fa naan baal jàmbur nangam nangam kii nitu diine la nitu lii la nitu laa ma ne ko yow soril nii tey lii la fayee ndey gis nga ko moo Kalifon tamit mm-hmm. lii la fayee Kalifon gis nga ko moo pawlis lan la fayee pawlis moom kan la amal jàmm na la ko wax kan. ñii di ay footi yu bon nga naan maam benn bañ xoola te duñu ay waxkat de ñii duñu ay waxkat de barki salaatul fatihi xoola nga jàng arxuraan di ko tari loolu yéemewul de jàngoo ko di ko tari moo yéeme gars yi xàmmee leen. macha macha allah moom yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo loolu ci euh, waxtaan bi nga xamante ne seqoon nañ ko ak moom euh, saa su ne rek nee naa bu ñu toogee ak moom seq waxtaan ci yenn mbir yi nga xamante ne day xem ci réew mi mu joxe ci xalaatam euh, partagé ko ak sénégalais day doon njëriñ ci askan wi te jàpp nañ loolu rek la ñu soxla ci li nga xamante ni si moo di waxtaan ci tëj rek yan kàddu ngay tàggatoo ak askan yi nga xamante ñoom la ñu seqaloon jotaay bi. non li ma lay wax ni pour mu leer boo bëggee Cheikh Ahmed Cissé dama lay jox biñ jàkkaarloo boo demee booy monté nga màggal gi. Eh. eh yow tamit xamal ki ngay waxal yow it. Eh? waxal rek tëdd ci taabal gi ba mu jeex boo buggee dama la koy joxaale. Mm-hmm. man kay xoola lu ma gën a soxla nga tëggal ma ko mooy nga tegal ma see ñeneen ñi moom xam nga ñooñu moom jàggi naa leen tey nga tegal ma Gabriel nga tegal ma si si eh, si Ahmed Cissé ñooñu laa bëgg a jàkkaarloo moom du ñëw. parce que woo nañ ko ba sonn mu rasu di wéy man nga toog ma toog Abdou Nguer gis ngeen ni ma ko def. gis nga ni ma ko def du. ah bugguma lim ay tur. sa waay. nee golo si ndigg lañ koy yeew. xoola wax fii la fii ñun produire ti produire théâtre lañ dañ ñu doon jàngal naan la da ngay nekk doom nga jouer doom. suba nga joué papa ginnaaw suba nga joué jaay kon xam nañ kassin bu nekk li muy wund gis nga kassin yooyu ngeen gis yéen la jaaxal mais ñun jaaxaluñ wallahi xoola lii riir yëpp demal nga laaj théâtre kat yi jaaxaluñ ñooñ xoola coow li ci marché bëri na mais kenn ku nekk soxlaam lay wax moo tax marché bi réer jaay jaay kii si la marché bi di riir nu yaa ngi dégg ñoom amet siisa nag yaa ngi dégg li ñuy riir du tus du tus yaa ngi dégg man li may dénk waa dëkk bi mooy nañ yeewu senegal yeewu leen si seen bopp yéen ñi nga xam ne nii dañuy ñëw di dof dof lu am ñu leen di jàppale ci ndof gi yeewu leen ci ñooñu genre see amat leen si ñoom Californie ñooñu ñëpp yeewu leen si ñoom ku xam ne tey mu wax la lii suba mu wax la lee ba pare ñooñu luñ la wax tey bu subaa ñu ànd ak keneen randu feneen aji saar gis nga niñ fi yanoo woon aji saar te calculer woon naa leen aji saar bu yàgg ne leen aji saar misaalam mi ngi mel ni xale boo solal ba mu rafet mu day kuus bi soo ko gisee da nga koy sol da nga koy bëgg a fab mais saa boo ko fabee day yi xeeñ la nga sànni ko ñoom fab nañ ko ku ne fab na ko jàll jàllee yeewu leen ci ñii yeewu leen lool rek lay wax quoi wasalaam. wasalaam maam Ali yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo loolu ci dalal bi nga xamante ne aussi dalaloon nañ ko ko ni rek la ñu koy defee ak yéen di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox di daje feneen numéro jërë ngeen jëf.